qui est très importante. Mm. aujourd'hui tous les pays du monde sont ci wolof. maanaam dëkk yi nekk si àdduna bi yëpp maanaam li nga xamante ne régime nationalisme nañuy doxal seeni réew. Mm. ñu wax ko ñu bañ ko wax. Mm. peut-être mun nañ ko nëbb. pour des intérêts pour des intérêts yi nga xamante ne des intérêts économiques politiques ou sociaux. c'est la réalité des mm. choses. Euh, guerre Russie Ukraine ba mu amee fan yi passé mais France dafa signé woon ay convention bañ demee ba xam ne pétrole bi commencé na leen indil ay jafe-jafe seen biir réew. mais ils se sont retirés de ces conventions là pour protéger les intérêts nationaux. pour protéger les intérêts nationaux ñëpp gis nañ fi États-Unis Donald Trump ba mu ñëwee lan la wax Africa américa first. jiital réewam kon ñun tey jii nii en tant que des sénégalais. Mhm. dañu war a jiital Sénégal ci kaw lépp. ci kaw France ci kaw États-Unis ci kaw Chine ci kaw Inde ci kaw Brésil ci kaw réew ñu war wër ñëpp. Mhm. dañuy xool suñu intérêt ñun en tant que des sénégalais. ñu bañ di dugg si benn géopolitique mondiale boo xamante ne si suñu intérêt dafay faral di nekk. Mm. Euh, leneen li nga xamante ne également am na si euh, qu'on qu'on qu'on se dise la vérité les manifestations qui ont eu lieu ça ne portait pas sur la troisième candidature wala le troisième mandat de Macky Sall. mais manifestation yi ba mu amee c'est parce que nañoo teg ay daan ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko moo tax gars yi génn rabal taw. mais est-ce nit mos na fee yu juin bi wala bu 2021 yu juin yu 2021 bi yëpp. Mm. c'est parce que y avait des décisions de justice ci Ousmane Sonko. moo tax gars yi génn. attention moo tax gars yi génn. Mm. attention mais mais ma jeexal rek. attention ma jeexal parce qu'il y avait des de justice. voilà mais en mars 2021 il y avait pas de décision de justice. donc donc si y avait le dossier. non en le dossier était ouvert dossier était ouvert. non non euh, ça dossier mais toujours c'est des décisions parce qu'on l'avait arrêté en mars 2021. kenn mënul woon ne justice amu si loxo nañ ko jàppalu bu yóbbu ko biro procureur booy génn gars yi bàyyiwaat ko. donc ay dossier de justice yoo xamante ne dañ ko teg ci kaw ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko moo tax jeunesse bi génn moo tax euh, li nga xamante ne le président Macky Sall daf ko def euh, dañ koy saluer acte bu baax la il a renoncé à se présenter ce qui est différent de renoncer à une troisième candidature différent aussi de euh, de de renoncer à un troisième mandat parce que une troisième candidature est validée par le Conseil constitutionnel sànq Pierre moo ko wax nous sommes dans un état de la troisième candidature de Macky Sall du moom moo koy wax wala ñu mu àndal ñoo koy wax wala du ñun ñoo koy wax. c'est le conseil constitutionnel qui valide la candidature de Macky Sall donc foofu Macky Sall eggagu fa woon ku renoncé wul si loolu. li nga xamante ne également mooy troisième mandat dafa war am benn sanction bi nga xamante ne peuple bi moo koy joxe ñu approuvé candidature am fal ko troisième mandat loolu tamit egguñu fa. li ñuy saluer mooy il a à se mais il l'a fait il l'a fait trop tardivement parce que amaana bu ko defoon ci njëlbeen am na situation dëkk bi fu mu tolloon du fa egg qu'on se dise la vérité et aujourd'hui il a posé un pas essentiel pour apaiser la situation tendue du pays loolu dañ koy saluer mais na continuer na ouvrir discussion yi na ouvrir dialogue bi démb na ma doon déglu. Euh, l'archevêque dialogue bi gën a yaatu la. waaw l'archevêque de Thiès André Gueye et qu'est-ce qu'il disait euh, la fois en Dieu n'est pas dans la division elle doit susciter le dialogue l'amour et le respect mutuel le respect mutuel mooy lan li nga xamante ne yelleef la ak bi nga xamante ne opposition. ñoom joxante cër daal. dañ joxante cër. Mhm. donc cër bi nga xamante ne Ousmane def ko mérité mais dañ ko ko jox. Macky il n'a pas renoncé parce que dafa bëggoon renoncer qu'on se dise la vérité bu fekkonte ne loolu dafa nekkoon ci moom bu yàgg kon du fi nekk di wax wii nii wii non mais il a subi la pression nationale. Okay. la pression populaire nationale. Mm -hmm. et la pression de la communauté internationale. léegi dafay indi suñu thème bi. waaw loolu moo ko poussé que mu renoncer à son mandat mais c'est pas daf ko def nii rek de manière volontaire.